bay wejji ñëw na borom vélo bi ñëw na ndene ndene ñëw na ndene domi giw laa bay wejji sa kër gi neex na lool waaye xoolal ndeene moom géwél moom moo ko yëngal baay wej ji ñëw na borom bi ñëw na ndeena ndeena ñëw na ndeena eh, eh. ni ma yem waaye bu ñu duggee ci néeg bi nga ne man bu ma sa eh. ma moom ay waay ma mën a nëbb soriwul yow yow yow yow yow moom xanaa duñu wax rek nga guddi ba guddi du guddee moom liñ tooy ci yow lañ may doolaar bu la dee daa ko yaay jël ma bu yaay tànn yaay may may a neex yow raam nga yow ndekete li ñu nekk ci kër gi yëpp yaa ngi xool sama soxna ji bu ma weddi dara yow dama takki jabar yaa ngi màgget dama eh, ah, takki imo loo gis yow loolu gisoo dara ñàkk nga fay rek toog gisoo dara dama takk gisoo dara dama takk jabar yaa mën a sóob takkal waaye kër gi moom maaye duñ ci toog da mën a yar nga génn ci biti fa laay mag yow yow boo xamoon sa bopp sew bi la xaj bay mbaw ko xamul xamul la xaj bay mbaw père ak dara la man boo ñu ma eh nene nene nene waaye nene waaye nene nene na Ndeye Ndiaye daal fa doon Ndeye Ndiaye. Ndeye Ndiaye man Ndeye Ndiaye mi mujjee takk. muusoo takk ko rafet. nga xamante bëj benn bëj mi nii la def nga am yu dugg ci biir nga dafa rafet doo bëggee dégg-dégg moom tapp sama ginnaaw rek ma lay jóg. nga bàyyi ma bañ a. sama liggéey laay def. yow mi ko ñàkk kersa nga de. li jëndu ma loolu la. waay bàyyi kii waay waay bañ bàyyi. Eh, eh, doon eh, nañ bàyyi kii kii sa bàyyi la waay. li jëndu ma man sama liggéey laay def nga sa waay. yow xool yow mi ko ñàkk kersa nga. bay wejji ñëw na borom vélo bi ñëw na ndene ndene ñëw na ndene domi giw la bay wejji sa kër gi neex na lool waaye xoolal ndeene moom géwél moom moo ko yëngal bay wejji ñëw na borom vélo bi ñëw na ndene ndene ñëw na ndene domi giw la